mbokk internet tinggi ñu di ruang bu kan iya di dal jàmm sur sport 221 CAF mi ngi fësal ci ay xibaar ne kat ñoom léegi kat amalaat nañ contrat bu bees ak télévision bu mag bi nga xam ne mooy Sport groupe boobee nak di lañ diviser bu baax li ngeen mooy di Côte d'Ivoire 2024 ñu mas yëpp nag tikk yi nga xam ne mooy may nit ñi su patee ñu dem ci stade pour vivre kat voilà la messe du football africain et kat nag fixé nañ prix 2 euros 1300 francs CFA mooy que 15000 francs CFA bu njëmee ba ci final bi nag dina am yokkute tuuti nag mooy que 30 euros ñu xayma ko ci 19600 francs espérons ko sénégalais yi dinañ ko assisté en masse ndax kat suñ gaynde la yéene ñu dem final Maroc ak wa Mali tàmbali nañ bu baax li nga moy mondial yi du set bi foofee ci Indonésie ku ci nek am nga ndam bu Mali bi mo écrasé Uzbekistan 3 bi 0 way du kenn ku dul Mamadou Doumbia bi mo amal triplé mooy que mu lakk caaxi ñet yoon et ka ci noné mom lañ tabb ki gëna xarañ ci joone moy que man of the match li ngeen gis ni nak mom moy design future ballon bi nga mom lañ wara jowante ci euro 2024 ci si taay ki manqué bobé légui kat mom moy mom moy joxe ay ballon yi nga xamné mom lañ wara a doxale ci ligue europa bi de même que conférence ligue bi après bi nga xaatimee contrat ak ligue 1 Paulo Maldini mom nak benn candidat la pour don directeur sportif Al Ittihad kon ancien milanais bobé nak dina jël ndogolam ci bis yi dugg nii Paqueta bi moo yoroon club benn mooy Villarreal ca Espagne kon moom mujj nañ ko dàq. ginnaaw gi kat ba mu amee douze matchs à la tête des Sous-Marins kii nga xam ne mi nga ci woon utu kon nag du keneen ku dul Marcelino bu ñu soxandikoo ci Diario AS moom bu leen fàttaliku moom dafa démissionné woon tekki ay ndomba tànkam foofee ca Marseille kon du yàgg dara dinañu fësal ñëwoon. Ilias Akromale Uyo moom doon doxal ci Espagne ci petite catégorie kon moom 19 ans donc de la am ek jàppaleen kat moom dafa jël ndogal kat ne kat Maroc moom la bëgg a joonte kon Marocain ñi ngi def ay jéego kat pour convaincre bi nationaux yi am nañ possibilité jouer avec le royaume saoudien ginnaaw gi Sofiane Diop. waa Espagne ñoom nag fësal nañ seen liste pour joonte leen mooy qualification Euro waaye nag sans le joueur de Real Brés bi Moïse Isco naam mi ngi waaye kii nga xam ne mi ngi wane boppam ci Allemagne muy Alessandro Grimaldo moom nag woon nañ ko gulet avec la Roja moom benn benn latéral gauche la ca Bayer Leverkusen de Xabi Alonso 16 matchs la joŋante dugal 7 buts amal 6 passes décisives Tolisso moom mi ngi ñaawlu bu baax kat absence de sanction mooy que daan yam teguñu ko nag waa Marseille ay daan yu diis moom la doon xaar ginnaaw bi ñu attaqué seen bis bi am ne kat da doon utali ca stadium Vélodrome ñu attaqué ko avec des seen course biir mooy yoo Grosso ñu gaañ ko ci bët waaye heureusement que voilà il s'est rétabli waaye nag mi ngi ñëw loolee bu baax a baax ci noonu nag pour maytu fitna ci diggante supporter lyonnais ak waa Marseille kon kat seen dig dafa jël ndogal kat may ñu benn supporter Lyon mu tële foofu ci Vélodrome la pro Martinez bi mi ngi defal mi ngi def ay jéego yu am solo ci Serie A avec les yi moom nañ lañ tàmbali bi gën a xarañ ci mois d'octobre bi. Nicolo Fagioli xam ngeen ne moom dañ ko teg ay daan yu diis sa ginnaaw gi kat ba mu laalee taqee ci wàllum kàttum xaalis waaye Juventus de Turin dañoo def nenn mooy que pour indil ko jàppalem kat dañ koy xaatimal contrat buy dem ba juin 2022 ci noonu nañu yokkal ko ci mbaquus mooy que kat dafay nga yokkal wàllum salaire am waaye moom nag laata muy ñëwaat ci jowante yi xaar leen ko bu baax a baax au mois de mais loolee dafay tomber sanction bi jeex. ardo gula voilà ba ca topp ko ndax mom kat amal dina gañu gañu kon mom dina tok un mois laata mu ñëwaat ndax dafa lu ñaan du sirir au quadriceps droit comme ni nga fësale ci hibari waye waaye coach biir mooy Ancelotti mi ngi dalal xelam mi ngi nan ko kat voilà ben jour bi nga xamne kat dana réussir fo ci Real de Madrid bu mu yakamti dara nam nag ay blessure sonal na waye toujours mi ngi garder confiance Kindawo Turki boobee e eh, kinyom ñi ngi am confiance dina dalal bu baax la canadien bi moy alfonso Davies bi nga xam ñi ngi ñi ngi fësal ci xibaari kat voilà dina rejoindre bu baax a baax les merengues yéene bu wa Barça mo ñu recruter kii moy zao flex ak Cancelo bu fekkee sen eh, app bi abal nañ len ko jeex kon bu ko ci askat Barça dina def le tour regrouper sen moy pour mën len signeel et que ñu mën wéyle avec le club blaugrana et que jàppale nag club boobee sax ñoom comme ni ngay fësale ci xibaar Xavi mën nañ ko dàq waaye ñoom am nañ confiance ci le technicien espagnol kon dina wéyle ak ñoom Kraus bi mooy ancien attaquant des Reds de Liverpool bi ci ana ci analyse moom nag amul yaakaar kat ki nga xam ne kat moom mooy attaquant sénégalais bi mooy Nicolas Jackson voilà nag dina doon benn solution à terme pour Blues de Chelsea. waaye nangul naka nag benn attaquant BM dafay def ay effort yu bëri ci surface de réparation bi ndax mën a dugal 15 wala bokk but moom nee na kat yaakaaru ko ci attaquant euh, sénégalais bi Mauricio Pochettino bu fekkee Krauss loolu la yëkkatee kàddu moom nag mi ngi am confiance ci Nicolas Jackson mu ne nag euh, il est jeune kon li war a def dong de mooy mu amélioré boo ko defee kat muy dugal muy dugal ay but ndax contre Tottenham naam dugal na 3 but waaye mënoon dugal ba 6 et 4 moom li ëpp solo mooy que kat dafay montré calme et que voilà amul benn pression waaye de. avec le temps foofu ci Chelsea moom am na yaakaar que Nicolas Jackson dina amélioré li nga xam mooy wàllum ay statistiques am James Maddison moom nag dina toog ba janvier laata mu ñëwaat ci joŋante ndax dafa am ay gaañu gaañ comme niñ ko fësile ci xibaar yi de même que Mickey Van Der Selve Van de Ven également moom aussi réseau d'une blessure au studio Zambie aussi dina toog ba mois boobee as posté ko bi seen entraîneur moom la tabb entraîneur bi gën a xarañ encore mois d'octobre foofu ci Premier League bi gën a xarañ ci mois d'octobre bi Roberto Firmino mu ne nag Mohamed Salah dafa égoïste woon et que loolee da doon merloo ñëpp et que Liverpool nag amul benn intention nag. nan dafa recruter renforcer milieu de terrain ndax am nañ yaakaar seen milieu de terrain bi nga xam ne actuellement ñu ngi fay doxal club yu Premier League yi ñoom nag dinañ voté 21 novembre pour introduire nag wàllum terrain ci ñi nga xam ne nag ñoom moom club foofee ci Angleterre amaat yeneen club fekk buñ ci bari naan dañuy abali seeni i yooyu foofe est-ce que kat bëgguñu xeex yenn ci club bi gars yi naan kat voilà wàllum jalousie la ndax kii si xam ngeen am na lien Strasbourg ak yenn ci joueuram noonu la doxalee. kon nag bu ñu amee 14 voix sur 20 loolee voilà dinañ ko amal. Chelsea Manchester United dinañ fay bu fekkee kat ki ngeen mooy Denzel Dumfries ñor na leen mu bawoo ci Inter 43 millions d'euros. également Chelsea ñoom nag nee na ñu recruter benn gardien am nañ seen am nañ wóolu ci seen ñaari portier yooyu Chelsea am na yaakaar dina amal xaatim dina amal contrat mooy que contrat bu bees ak Conor Gallagher ci du lu dara. Léo su benn militaire bi nga xam ne kat euh, voilà 2006 dong di la juddu jàpp leen bu baax moom xaatim na contrat professionnel bu njëg avec les Blues. João Palhinha le portugais toujours nag euh, Bayern bëggu na ko dalal naam xaatim na contrat avec avec waa Fulham pour rappel. ba léegi ñoom kat ñi xibaar ka le sud africain bi moy lii la Foster dafa amé problème mu xel e ka ci noné kat ñi koy koy doon spécial bu ko défé kat ñu top to ko mu ñëwaat ci ay jogante mo mel benn avant centre bu 23 ans bi Thomas Partey nak dina tok ba fin 2023 ndax dafa may gañu gañu kon nak dina téwé e li ngeen mooy kan bi dara leeru ko ci way dina ci nday xibaar e li ñu ci xibaar xam nga ne Manchester United jëndaguñ ko dara leeragul et ci noonu nag budget bi moo leen war a may ñu amal transfert ci mercato d'hiver bi Varane nag dinañ ko wàññi bu baax a baax seen attaquant bi mooy Rasmus Højlund moom kat moom léegi bokk na ci ñi dàq dugal ci Ligue des Champions ginnaaw ba mu la koy ñeent juróomi yoon bu fekkee dossier bu Everton nekk kat Arsenal dinañ dinañ dugg ci dossier Dusan Vlahovic wala bok Victor Osimhen Calvin Phillips xam ngeen ne mi ngi ci yoonu quitté foofee ca Man City ci yoon ci noné nak fësal nañ xibar kat wala amal na accord de prince club bi nga xamné moy mooy Juventus de Turin Pep Guardiola mi ngi annoncer nak kat ki nga xamné moy Kevin De Bruyne nam wér na waaye nag duñ jël ben risque nan la ngey dugal mu mu jouer ndax xam ngeen ne ci biir Sud la jógee waaye dañuy def nànk-nànk muy sukkandikoo ci Gazzetta dello Sport yàgg dara di gis Belgique mu fule les pelouses. et Belgique club yu mag ñi ngi ci ginnaaw waaye dafay mujj xaatim contrat buy dem ba 2027 ak waa Crystal Palace. Evan Ferguson moom aussi xaatim na contrat buy dem ba 2029 ak waa Brighton. ñu bari tito nañ amoon njàqare way kat ki nga xamne mom moy wajuru louis Luis Diaz di Manuel mom kan muju nañ ko gis ginaaw gi bañ ko kidnappé lu tolal fukki fan ak ñaar Ismail club kelebam ñu daan ñaari bal ci dara mom moo dugalaat deuxième temps bu dugal lu bi bu bam kon jàppale ne international sénégal bi nak dugal nak kat bi amal ñaari passe décisive ci carlos masim jogante avec les Marseillais Karim Benzema mo dem match bu reuy 3 but mo amal benn passe décisive ko le ben moyal itiyat Boulaye Dia aussi jot naa dugal club bi nga xam ne mooy sa Salernitana waaye ñoom dañuy mujj témboog sa ak Sassuolo ñaari bal ci ñaar bi mooy quatrième bi bu l'international sénégale bi. Habib Beye di wéyale yoon ak Red Star ñu amati ndam kon bi mooy seen dixième victoire deux nuls benn defet kon le technicien euh, sénégalais bi nag jàppaleen bu baax nag ñoom ils sont à huit points d'avance ci ki nga xam ne moo nekk ci ñaareelu togg bi. ñu jeexale ak yenn mooy Bouna Sarr xam ngeen ne Aliou Cissé fas na lisam moom yenn mooy Bouna Sarr mi ngi gratigné quelques quelques minutes ay xam ngeen ne bu ci jour bu naan ci situation yu mel Aliou Cissé wul la nga doon kat dalay wolu on se rappelle bi un certain Nampalys Mendy waaye lan mooy problème bi nag ci diggante Nampalys Mendy ki nga xam ne mooy Aliou Cissé voilà dañuy rappeler contexte bi rek on se rappelle bien voilà nag mu dee benn poste bi nga xam ne nag ñu bëri jàpp nañ doon garawal El Tactico est-ce que El Tactico voilà dafay fayonte ndax on a vu pas mal de jours yi nga xam ne kat comme ci mel ne kat du la wóolooti rien que kat dafay appelé cohésion ci groupe am buggul am benn jafe-jafe ak benn jour. waaye nag ci noonee nag bu fekkee kat loolee moo dox ci diggante bi nañ dox ay tànk jàmm nag waa ko diis kat Bouna Sarr benn apport bu rëy rëy la ci équipe nationale moom bi def nag kan bu extraordinaire bu remarquable foofee ca Cameroun à l'absence de Youssouf Sabaly tam nañ nga waxte dee am nañ Formose Mendy bi nga xam ne foofee ca mën naa ne foofee ca Lorient lu ci bëri ak central les Eh, kii mooy Noah Fadiga koy wóolu de waaye amul daray confiance ci moom ndax kat mosuñu ko gis mu dugal ko mu jogante nekk ñi ngi dem ci échange yu solo kon c'est le moment nag ñu dox ci ay tànk jàmm te Bouna Sarr mi ngi am de petit à petit temps de xam nañ bu baax il connaît bien la tanière kon bu fekkee nag coow moo dox seen diggante ñi nga xam ne ñoo ci war a dox nañ ko dox bu ko defee kat ñu fay li nga xam ne mooy iddaay bi ndax kat voilà ci échange yu am solo lañ la ñuy jublu soxla nañ kat ay joueurs de qualité yi.